màggal di màggal di siyaare di siyaare sëriñ tubaa sëriñ tubaa sëriñ sëriñ bi nee na moo ngi ñaan mu yàgg fi te wér maa ngi nuyu moo ngi nuyu njabootuk sëriñ Saliou Mbacke gépp gépp njiitul Serigne ci njiitul sëriñ Cheikh. sunu sunu sang ba. sunu sang ba. di ñaan mu yàgg fi te wér. sëriñ bi nee na tey ñaan mu yàgg fi te wér. maa ngi nuyu tey siyaar nee na moo ngi nuyu tey siyaare képp koo xam ni Mbàkke nga sant. di wax sama mbég nag. sëriñ bi neena tey feeñal mbégam nag. di siyaare. bokki cantaakoon yépp nee na di siyaare bokki cantaakoon yëpp. jëwriñ yi. jëwriñ yi. yi. jëwriñ universel yi. taalibe yi yëpp. taalibe yi. di nuyu sëñ Babacar Mbaye. nee na di nuyu sëñ Babacar mbay mi jiite quartier Jannatu bii nga xam ne mooy Jannatu Mahwa. bu ma ko sëriñ bi nee na bu nuyoo day moom nuyu na waa Jannatu gépp. sëriñ bi nee di nuyu sunu waajur waajuram wii toog. muy sëriñ Murit Cuun. sëriñ bi nee di ko màggal. nee di ko siyaare bu baax a baax. neena di nuyu mbooleem gan gu fi nekk ànd ak moom bidd gii. di kilifa. di kilifa. di kilifa di kilifa diine. maa nee na moom day mu ngi sant bu baax a baax a baax. màggal gi nii nee na màggal gi day nii mu deme sant naa ci sëriñ bi lool. nee na sant na ci sëriñ bi lool. yëg naa ci ak ci ak cant bu wér. yu mu war a joyal. yu ci sunu sang ba. ci sunu sang ba. xam ngeen ni waxtu wi moom. nee na xam ngeen ni waxtu wi moom. mu ma ne su ta wax ba yeggal. te xol yi ak xel yi. te xol yi ak xel yi. demul ca sunu sunu jàmbaar. nee na te yi ak xel yi demul ca sunu jàmbaar ja. lu ko sant na kooka day lu ñu ko sant rek. dese bor dese defal nanu loo xam ni. nee na moom day defal nanu loo xam ni. lottu nee na moom day lottu nanu ci. dimbali nee na moom day dimbali nanu. jàngal nanu jàngal nañu yit ak taalibe defal na xam-xam defal nañu xam ci sëriñ bi nee na ba tax na waxtu wii nu toll tembe waxtu wii nu toll tembe sunu xel yépp a ngi ci moom ci nee na ci saayir rekk jamono jii jamono moo ko daan jiite. moo ko daa jiite. waaye jógu fi de. nee na waaye moom day jógu fi de. mu ngi mu ngi nee na mu ngi fi de te mu ngi ci sunu biir. ku am xam nee na ku am xam-xam. yàlla may tuuti. te yàlla may la tuuti. di xam ni. nga xam ni. moom day danduwul lu tol ni përsoosu buso. nee na di xam ni danduwul lu toll ni bën bëtu puso. ndimbalam ci ci ñun. nee na ndimbalam ci ñun sëriñ bi. saa su ne ñu ngi koy yëg. nee saa su ne day ñu ngi koy yëg. rawatina nag ci biir màggal gi. nee na rawatina nag ci biir màggal gi. bu ñu xoolee fa ñu jóge daaw. nee na bu ñu xoolee fa ñu jóge daaw. la nu defoon daaw. la ñu defoon daaw. xool li nu def ren. xool li nu def ren. xam ni cantam goo gii muy wax. xam ni cantam goo gi muy wax. moom joyal nanu moom joyal nanu ko. defal nanu loo nee na sëriñ bi day defal nanu loo xam ni. wóor na ni nun nun mënuñu ko mënuñu ko. bu amee rek. nee na boo amee rek. ab loxooma nga ca ab nga ca. te foofee mu ne. nee na foofee mu ne. laa mën a la mën a waat ni. fa nee na mën naa waat ni foofee sëriñ bi ne fa doole fuuf. ba tax na. ñu ngi koy ñu ngi ñaan. nee na ñu ngi ñaan. yàlla na ñu ko sunu borom fayal. yàlla na ñu sunu borom fayal jëmm jooju yi. barkeb Serigne Saliou. Ah, màggalu ren nee na màggalu ren gi nag. mel na ni. mel na ameel nee na mel na ni ameel na cant gu rëy goo xam ne da koo ameel njaboot gi. muy taalibe yi. ñeenti weer mbaa juróom benn weer ca ginnaaw nee na ñeenti weer mbaa juróom benn weer ca ginnaaw booba ak léegi booba ak léegi kenn attandikuwul attandikuwul lu waay am lu waay am jox nga ko jox nga ko ko ngir ñu def ko ngir rek ñu def ko ci màggalu sëñ Tuubaa gi coono boobu nu tegoo nee na coono boobu bii nu tegoo koo tuddee coono rek. nee na dañ koo tuddee coono rek. waaye mooy sunu nee na waaye loolu lii mooy sunu ndimbal. ndax nun ndax nun kat. ay murit lanu. ay murit lanu. ay cantaakoon lanu liggéeyal sëriñ tubaa liggéeyal sëriñ tubaa rek lan nu sàkke loolu rek lan nu sàkke woon kon ne mooy mu ne kon mënuñu koo tuddee sax ab coono nee na kon mënuñu koo tuddee ab coono waaye nag ñu mat jaajëfal lañu na waaye nag ñun taalibe yi day ñu mat a jaajëfal lañu ndax liggéey nee na ndax seenu coono pësteef bu ñu am pësteef bu ñu am liggéey ci liggéey bii Serigne Touba rek tax. nee na te Serigne Touba rek tax. ñun de ñu bi nee na moom day ku lot la. waaye sëriñ Touba day. waaye Serigne Touba day moom. ku am pay la. nee na moo ngi ñaan mu fayal ko. maa nee na moo ngi sant nag bu baax a baax. sama njabootug nee na mu ngi sant bu baax njabootug boppam. mooy ñi ma nee na mooy ñi mu seqal sëriñ bi. ñuy ay rakkam. nee na du fi nekk nag di lim. waaye ñoom nee na waaye ñoom rek ñoom ñëpp rek. kenn ku ci nekk. kenn ku ci nekk. yëg na. cant. gu mu am ci gu mu am jëme ci yow. taxawaay seen taxawaay daal. nee na ñoom daal seen taxawaay. sëriñ bi nee na moo ngi koy rafetlu. soxna yu soxna yu tedd yi nga xam ni. ñooy àndandooy sëriñ bi. muy soxna mboose ak soxna Aïcha. nee na taxawaay boobu yi rek. moom lañu am ci yëf yi. sëriñ bi nee na ba tax na moo ngi leen di joyal ñoom it. ak cant gu wér. nee na ñoo ñii day di soxna Aïcha ak soxna mboose. wuutale kook doom yi mu jur yi nu jur. nee seen taxawaay daal. seere àdduna nee na moo ngi seere àdduna ne moom day rafet na sama rakk yi nag na rakkam yi nag dara bettu ma ci nag mbir mi nee na rakkam yi nag dara ko ci nag ndax mbir mi seen mbir te kilifa nee na te kilifa ga daf noo jàngal ak taalibe daf noo jàngal ak taalibe ci la ñu nee na ci la leen narganoon na ñoom ñëpp daara yi Serigne Saliou ñoom ñëpp ci daara yi Serigne Saliou Mbacké yi la ñu nekkoon. jëmm ji toog nee na jëmm ji toog. di Serigne Khadim. ñëpp xam nañ ko ci wetu Serigne. nee na ñëpp xamoon nañ ko ci wetu Serigne Saliou Mbacké. kon ñun. nee na kon ñoom. dëgg yàlla. wax dëgg yàlla. ci ak rek la ñu mës a ñoom day ci ak taalibe rek lañu ñu mës a nekk. taalibe rek la xam. nee na ci ak taalibe rek la ñu xam. nee ci lañ leen toqi. ëpp ci ñoom nee na ñi ëpp ci ñoom bi ñuy dem daara bi ñuy dem daara amuñu fukki at amuñu fukki at kon fa la toog fa ñu toog ba am fa ngërëmul sëriñ ba ba am fa ngërëmal sëriñ Saliou kon wax dëgg yàlla nee na kon dara bettu ko ci doxin wii rakkam yi dox jëm ci moom nee na mu ngi sant ay bokki boppam mu ngi ay jarbaati sëriñ bi ay sëtam. di ay sëtam. waa jaay njureel. waa jaay njureel. ñooñu dama leen di tudd. sëriñ bi nee na ñooñu da leen di tudd. ndax ñoom de danoo sagal sëriñ bi lool. ndax ñoom de danoo sagal sëriñ bi lool. mel na ni. mel na ni. kenn mënu leen ci liggéey. mel na ni kenn mënu leen ci liggéey bii. ah li may wax. nee na ah li muy wax nag. ci kanamu taalibe yi la koy ci kanamu taalibe yi la koy wax. njabootug sëriñ nee na njabootug sëriñ bi. ñu leen di wax jaay njureel. na ñu leen di wax jaay njureel. ñooñu de ci liggéeyu sëriñ nee na ñooñi kenn mënu leen ci liggéeyu sëriñ bi. mooy li mu wax nee na mooy li mu wax léegi rek. sëriñ bi ci loolu rek la leen nàmpatal. nee na loolu ba tax na jural na ko ak cant lool. wax wax nee na wax ji mu koy wax. li mu ci jublu sant rek. nee na li ci jublu mooy sant ko rek. ku jaarale ci loolu. nee na ku la jaarale ci loolu. tërbiye la ci yoonu sëriñ bi. tërbiye la ci yoonu sëriñ bi. bëggloo la sëriñ sëriñ bi. di la ci jëfloo. kooku amatoo payam. nee na loolu rekk moo taxoon mu ne dina ci wax. nee na moo tax mu ne woon. dana jël kàddu. sant mbooloo mi sant sëriñ bi sant sëriñ bi. nee na sëriñ Cheikh. mu ngi koy jooyal sunu cant. sëriñ bi nee na mu ngi koy jooyal ak cantam de. dimbali lool. nee na dimbali na leen lool. boobaak nee na boobaak léegi. mi nee na mu ngi leen di tette de. di boole ci liggéeyu nee na di leen boole ci liggéeyu sëriñ tubaab bi. di ko di ko jox liggéey yoo xam ne yu mu fonk la. biir kër sëriñ Saliou. nee na biir kër sëriñ Saliou. kenn nee na kenn mosu faa dugg. nee na guleet. sëriñ bi digle digle. di fa def dara di fa dara. sant ko sant ko ko. loolu nag day ndam nee na loolu nag day ndam lu fës. muy ndam lu rëy rëy rëy. nee na loolu day mat na nu sant Serigne Cheikh Mbacke bu baax. dimbali nu nee na dimbali leen rek. la ci jublu nee na loolu rek la ci jublu nag. waxaguma dara. nee na waxagul dara. lu jëm ci tool yi. lu jëmagul lu jëm ci tool yi. waaye maa ngi leen di ñaan. nee na waaye moo ngi ñaan sunu. cantaakoon yi yéen cantaakoon yi. ngeen waaj. ngeen waaj. te déglu ndigal. te déglu ndigal. xel koom ñëw na. xel koom ñëw na. te ñu ci yebalee. buñ te buñ ci yebalee. kenn duñu fa ca jiitu. waxaguñ ma dara nag. sëriñ bi nee na waxaguñ ko dara nag. waaye nii ma ko gisee. waaye nii mu gisee yëf yi. ah ah. nanu waaj nanu te loolu rek nag la ñu nee na te nun de lool rek lañ bëgg nag. loolu rek la xam. nee na loolu rek lañu xam. xel kom xel la ñu toqee. fa la ñu toqee. fa la ñu fa la fa la sëriñ bi. nee na fa la ñu liggéeyalee sëriñ bi. garaat bu sëñ Béthio am. nee na garaat bu sëñ Béthio am. foofee la ko dégg la ko jëlee. kon. kon. déglu nanu déglu. te waaj ba jekk te ba jekk bu loolu weesoo bu loolu weesoo mu ngi sant njabootu boppam nee na mu gi moom Serigne Cheikh moom day njaboot gi day nee na njabootu Serigne Cheikh dama yëg ci ñoom eh, ak cant lool sëriñ bi nee na njabootu Serigne Cheikh da cee yëg ak cant lool taxawaay bu ndax taxawaay bu nu am. ci bëgg leen a dimbali. di nu joyanti. di nu joyanti. di leen jàppale. ci biir liggéey bi. ci bi. sëriñ bi nee na loolu nag yëg nañ ko ba mu jaral leen ju di ci sant nag. nee na mu ngi leen di seereel bokki taalibe yi na sant na njabootug sëriñ seex Mbacke. bu loolu weesoo. nee na bu loolu weesoo. am naa lu ma naal. nee na am na lu mu naal. ba waxoon ci. waxoon ci. mooy suba. mooy suba. ginnaaw tàkkusaan. ginnaaw tàkkusaan. bëgg xeer wu njëkk. nee na bëgg na teg xeer wu njëkk. kër sëriñ bi kër sëriñ ndax moom day. nee na ndax moom day. amoon ay mébét. daa amoon ay mébét ci këram gii. ba ba daaneeloon ko. ba daaneeloon ko. kër kër gi nag. leen di fàttali cosaanam. mu mu nuy fàttali cosaanam. muy kër gu ko Serigne Saliou jox. muy kër gu ko Serigne Saliou jox. rëddalal ko boppam. rëddalal ko ko boppam. ba mu dëkkoon fi. ba mu dëkkoon fi. Serigne Saliou ci boppam. nee na Serigne Saliou ci boppam. ganesi na ko. ganesi na ko ci këram gii. kon muy kër goo xam ni. nee na muy kër goo xam ni. kër gu kër kër gu am importance la. sëriñ bi naaloon ci ay naal. nee na sëriñ bi naaloon ci ay naal. mëbëtam yooyu nag. nee na mëbëtam yooyu. bëgg nag ñuy nee na sëriñ bi nee na moom la bëgg nu yeggale ko. te du ko def ku dul nee na te kenn du ko def ku dul ñun taalibe yi. bu subaa. bu subaa. bëgg naa ñu àndandoo. nee na bëgg na àndandoo. teg xeer wu jëkk wi. xeer wu jëkk wi. te waajal ko te waajal ko. balaa déwén. balaa déwén. buñ fiy ñëw buñ mën fee màggale. loolu daal. nee na loolu daal. laa ne woon dinaa ko wax. loolu la ne woon dina ko wax. maa ngi santaat mbooloo bi nee na moo ngi santaat booloo bi bu baax a baax. nii guddi gi nag. nee na nii guddi gi tëddee. sant naa ci. sant na ci bu baax a baax. ndax booba démb ba tey. nee na démb ba tey. kuréelu xasida yi. kuréelu xasida yi. njàng mi ñu fi jàng. njàng mi ñu fiy njàng. jar naa sant Serigne Touba. nee na jar naa sant Serigne Touba de. li ñu ci xasaayiti nee na li nu fi jàng ci xasaayiti sëriñ Touba yi. kuréel bu wàcc. kuréel bu wàcc. beneen kuréel yéeg. beneen kuréel yéeg. ngay xamee ni. nee na ci ngay xamee ni. suñu jàmbaar ja. nee na ci ngay xamee suñu jàmbaar ja Serigne Béthio. liggéeyam ba rëy na. liggéeyam ba rëy na. gaa boot seen loxo yi. nee na gaa ñiy boot seen loxo yi. di jàng xasaay itam di jàng xasaay itam yi. boobaag léegi. boobaag léegi. biig ba tey. biig ba tey. kuréel bu yéeg. kuréel bu yéeg. beneen yéeg. ba fi may waxee ak ba fii muy waxee ak ñun. jar naa nee na loolu day jar naa sant sëriñ Tuubaa. maa ngi ndokkeel it mbooloo mi. nee na mu ngi ndokkeelaat mbooloo mi bu baax a baax. mbooloo mu yiw mii. mbooloo mu yiw mii. seen dal gii. seen dal gii. seen yiw gii. seen yiw gii. ñuy jàng xasiday sëriñ tubaay ñuy jàng xasaay xasaayiti sëriñ Tuubaa yi. bu weñ naawee sax nga dégg. nee na bu weñ naawee sax nga dégg ko. ah wawu doxin day. nee na wawu doxin day. mënta ñàkk ma sant leen. nee na mënta ñàkk nag mu sant ci bokki taalibe yi. bii yar ma nee na bii yar. bii moom lu yees nee na bii moom lu yees peq la. bii moom ku nee na ku fi ne. xam nga ni. xam nga ni. lii yees na. xam nga ni lii moom yees na. nii rek la war di deme nee na nii rek la war di demee. nii rek la war a demee. nee na nii rek la war a demee. nañu nañu nañu delloo siwaat nañu defaraat toogaay nañ defaraat toogaay yi nanuy déglu ndigal nanuy déglu ndigal fu nu toll ñun ay murit lañu ñun ay murit lañu ñun yoruñu sunu yoonu bopp ñun yoruñu sunu yoonu bopp yoon wi nee na yoon wi yoon wi yoonu Serigne Touba yoon wi day yoonu sëriñ Touba la. te bam cay bam bam cay ne. nee na te bam cay ne. di ca daj lam cay daj. di ca daj lam cay daj. booba kenn xamul fu ñu kenn xamul fu ñu nekk ñun. doonuñ ci dara. doonuñ ci dara. danuñ cee boole rek danuñ cee rek. ki ñu ci boole nag. nee na ki ñu ci boole nag. mooy Serigne Saliou Mbacké te mooy Serigne Touba. moo ñu ci boole. nee na moo ñu ci boole. yoruñu sunu yoonu bopp. nee na yoruñu sunu yoonu bopp. Serigne Saliou woonu def ay nee na Serigne Saliou Mbacké moo nu def ay cantaakoon. moo jaar ak sunu sang ba. nee na moo jaar ak sunu sang ba. fu góor doon dootul jaar ak góor. nee na fu góor dootul jaar ak góor. defal ko defal ko. lu kenn mësta defal kenn. yóbbu ko fof. yóbbu ko fof. mënee sutu koo seen. nee na mënee sutu koo seen. li nu war. nee na li nu war. mooy gore sunu digg mooy gore rek sunu diggante ak sëriñ bi. mooy lan. mooy lan. ndax ñun mënunoo defal sëriñ bi dara. nee na ndax nun day mënunoo defal sëriñ bi dara nag. liñ ko a defal liñ ko mën a defal nag. mooy doon ay taalibe mooy doon ay taalibe rek. bu diglee bu diglee. ñu def ñu def. bu teree bu teree. nu bax nu bax. waaye ku ñuy tere. nee na waaye ku ñuy tere. bawoo bawoo. yaa génne sa bopp nee na yow yaa génne sa bopp nag kon ci yëf yi. waaw waaw yàlla nañ ci yàlla musal. yàlla nañu ci yàlla musal. nun daal. bu am ci lenn lenn soxla. nee na nun bu nu am ci lenn soxla. Serigne Touba dimbali nanu. Serigne Touba dimbali nanu. am na nu kilifa. am na nu kilifa. muy Serigne Cheikh. muy Serigne Cheikh. nan ci topp. nan ci topp. di déglu ay ndigalam. di déglu ay ndigalam. tey bàyyi ay teram. bu nu ko defee. bu nu ko defee. raw raw. te duñ def leneen lu dul loolu. nee na te nun kat duñ def leneen lu dul loolu. Ah, waaw waaw. waaw waaw. nee na nun xaruwuñu de. ñun xaruwunu déedéet nee na ñun de. nee na ñun ay murit lañu. Serigne Touba lañu yaakaar. Serigne Touba rek lañu yaakaar. Serigne Mountakha mooy sëriñ Touba. nee na Serigne Mountakha Bassirou mii mooy sëriñ tubaa yàlla na fi yàgg te yàlla na fi yàgg moo nu dimbali. sëriñ bi nee na moo nu dimbali. moo nu sawe moo nu sawe. kon nag nee na kon nag. wax ji mu gudd mu gàtt. nee wax ji daal mu gudd mu gàtt. nanu doon ay taalibe nanu doon ay taalibe. nanu doon ay model nanu doon ay modèle. ay modèle de taalibe. nee loolu daal laa ne woon. nee na loolu rek la ne woon. soññ ci taalibe ne wax taalibe yi. nee na loolu la ñu woon dañu ko soññee nun taalibe yi. ñu defaraat toogaay bi bu baax a baax. te xam ne mënunoo doon nun lu dul ay taalibe. bu nu am soxla ci leneen. nañu déglu sëriñ bi rek. jàngeen jëf. jàngeen jëf. nee na mu ngi ñaan ci barkeb sëriñ Saliou. Eh, wax naa ba eggal. te tudduma waa jas waa Europe waa waa diaspora nee na moom mu ngi sant waa Europe gépp waa Europe yëpp maa ngi leen mu ngi sant waa Europe yëpp. ak waa amerique gépp waa bitim réew en général. nee na waa bitim réew gépp rek. ndax seen taxawaay. neex seen taxawaay. ci màggal si ci màggal gi. wax yàlla. nee na wax dëgg yàlla. ginnaaw bi ñu santee ñi ci biir réew mi. nee na ginnaaw bi ñu santee ñi nga xam ne ñoo ne ci réew mi. ngi sant ñu waa bitim réew. mu ngi sant waa bitim réew gépp cantaakoon yooyu yi. cantaakoon yooyu yëpp rek. nga xam ni rek. sëriñ bi rek a leen yitteel bi rek a leen yitteel. waaw waaw jërëjëf. maa ngi leen nee na mu ngi leen di sant. di di leen gërëm jërëjëf. waaw ñaan sëriñ bi defal nu nu nee na mu ngi ñaan sëriñ bi defal nu nu teewee ko déwén. te déwén dàqal ren fuuf. te déwén di nu dàqal ren fuuf nag. barkeb sëriñ Saliou bàyyi ñoog sunu sang yu tedd yi. sëriñ bi defal yàlla defal leen ak wér. yàlla defal leen ak wér. defal leen ak man. defal leen ak man. ba li yéene ci yoon wi. ba li yéene ci yoon wi. sëriñ Touba àggaleel leen sëriñ Touba àggaleel leen ko. mbarkeb sëriñ Saliou jërë ngeen jëf sëriñ bi nee na jërëjëf. waaw maa maa maa ngi leen di sant. nee na mu ngi sant kilifay réew mi yëpp rek. di sant les force de sécurité. nee na di sant ñii nga xam ne ñoo am taxawaayu sécurité bi ñoom sapeur pompier sapeur pompier. police police gendarmerie gendarmerie booba ba tey ñu ngi fi ñoom nee na booba ba tey ñoom ñu ngi fi dëkk bi ndox mi xaw naa am nu mu demee nee na dëkk bi ndox mi xaw naa am nu mu demee sax ñun yëgunu ko nee na waaye ñun da yëgunu ko ndax waa sapeur pompier ndax waa sapeur yi ñëw nañu fii ñëw nañu fii nekk ci sunu disposition nekk ci sunu yitte bu ñu bëggee ndox bu ñu bëggee ndox ñu jox ñu ko ñu jox ñu ko kon ñooñu war naa leen a sant sëriñ bi nee na kon ñooñu war na leen sant ca bopp ba ca bopp ba réew mi ci kilifa réew mi autorité yi nga xam ak autorité yi nga xam ni. ñoo ko fi teewal ñoo ko fi teewal. di préfet di préfet. ak ak ak sous préfet. sous préfet. Euh, kilifay département nee na kilifay département bépp daal sant na leen. Euh, du ma wax ba nee na du wax ba yeggalit. te beraluma nag ak cant. da te beralul ak cant. Serigne Bass. Serigne Bass. Abdou Khader Mbacke Serigne Bass Abdou Khader. di porte parole. yoonu yoonu maa ngi koy siyaare. sëriñ bi nee na moo ngi koy siyaare. te di ko sant te di ko sant nag bu baax. ci ab taxawaayam taxawaay bi nag du tey. nee na taxawaay bi nag du tey. Euh, sëriñ bi la ko doon defal. nee na loolu moom sëriñ bi la ko daa defal. ñëpp xam nañu. ñëpp xam nañu. diggante sëñ Béthio. diggante sëñ Béthio. ak sëñ Bass Abdou ak sëriñ Bass Abdou Khadre. taxoo bu ñu taxoo woon taxoo gu ñu woon. ñuy fàttaliku. ñuy fàttaliku. bi mu nekkee ci jafe-jafe yi. bi mu nekkee ci jafe yi. mel na ni. mel na ni. bokk na ci. bokk na ci. ñi ko jëkk fekk. ñi ko jëkk a fekk. ca barab ca barab boobee.